malades yi am ñuy xaar ñu nekk en liste d'attente war nañu mat trois cent et quelques trois cent huit ñooñu su fekkee ne yàlla dogal na li sotti ñoom ñëpp dinañ leen mën a jël en charge dana tax euh, liggéey bi gën a yomb bu dul loolu euh, day metti lool moo tax ñu di ci sant yàlla bu baax di ñaan itam taalibe yëpp ñu jàpp ci ba mu sotti ndax sëñ Moustapha mi jàmbaara lool Euh, sonn na ci jàpp na ci euh, képp ku mu yaakaar ne boo ci dugalee boo bu la waxee da nga ci dugal sa loxo jël na tànkam dem ba foofu waaye liggéey sëñ Tuubaa moo mel noonu man mii loolu moo ma fi bàyyi en tant que euh, membre conseil d'administration ma représenté conseil d'administration bi di sant yàlla bu baax ci lii ndax ndimbal la ci ñun waaw ndimbal la lu rëy ci dëkk bi mais ndimbal la ci hôpital itam moo tax ñuy ñaan ñëpp jàpp ci rek ginnaaw sëriñ bi moom génnee na xaalisam def ci loolu wane na ne liggéey sëñ Touba la liggéey bu sëñ bi nangu la kon nag ku man tey def ñi ngi lay ñaan nga def ci bu baax a baax lu yokk hôpital amal njëriñ lay doon lu baax ci population bi lay doon waaw. sëriñ bi nee na ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa hôpital Matlaboul Fawzayni di sant kuréel gi nga xam ne itam ñoo taxawal li ci njiitalu sëriñ Moustapha Diakhaté ak mboolem ñu ngi ko àndal ndax. jaamu yàlla kat li Cheikh Mouhamadou Fadi daa wax jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon lii képp ko koy def fu ne li ngay ñekk ñaan mooy yàlla nañu suñu borom musal ndax jàngoro ju diis la ju metti waaye nag yàlla moom moo xam li muy tegu jàmm te am na ko Sëriñ Tuubaa wax ne is is laysa ahadun maasuman min al marad wa ashtaki ilayhi ma min ad darar qad masani hatta arani loolu ñëpp xam na histoire bi sëriñ bi di taalif xasida mën la bu sifaay diggam ak soxna maam Faty Issa Diop wajur ak Cheikh Ibrahima Faty kon loolu sëriñ son bi bastan dégg muy wax ci jamono yi nga xam ne ñu ngi dooroon liggéey hôpital Lukke ba mu àgg danaa wax ne mag ñi dañ daa yéem rafetaayu hôpital ba mu ne waaye li ci dooleen kéemaan mooy ku ko mës a yéem ku ne rek tàbbi nga ci biir kon nag ñun yàlla nañ ci yàlla musal waaye yéen ñi koy def nag te di ko defal bindeef yi mu jëm ci njaboot gi taalibe yi ak jullit yi yàlla na suñu borom nongul leen di gërëm it sëriñ sa Touré bi ci pëstéefam ak taxawaay ndax bi nga xamee ne soxla ñeen pàkk bi ñëw ci wax ko mën naa ne di ko yàggal sax xëy na ci man ñii la ndax xatali jamono ak jàngaloon nañu liggéey Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne boo yoree kooku ndox te mënoo ñàkk ndox neen da ngay fekk ku wér géej dañ nga jël sa kook ndox sotti ca kenn mootu lu ca génne kon nag lu ci waaye jëf ci dërëm na xam ne boppam la ko defal mm-hmm. ndax bu ko suñu boor dafay eh, jëf ji ci moom lay delluwaat kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne nag alal moom dafa takk ci doomu aadama mm-hmm. xaru doomu aadama moo tax suñu doon di wax ne wala yasalkumu waa in yasalkumuha fa yufikum tabxalu wa yuxrij adxaanakum وانا بخون ان هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأبين أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالك وأنفسكم كون جهاد تسألا تيون يانا بكون تلقينا ماجي تلسلام كون ما دار عثمان ما عمل بعض اليوم يوانتي على عثمان جف تيوالو أدية موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا كان توبت غدا كون نجنيش نيب غرغر تجف يتحمل لكي واجف رك سرين دواهم lu ko nit jëfal rek am na koy te boo dajee moom ëllëg da nga xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek am solo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh